oo ma oo ma sañ-sañ ne lii par force la je relativise mhm. pour wax ni wuy y a mhm. des chances que tel ou tel peut Euh, puisse gagner mhm. suñu xoolee tendance yi ak ralliement yi ak yooyu mais xëy na mën nañu dem si deuxième tour je pense que noonu la mais xam nga nit boo xam ne moom saa yi buy wax moom dafay fàtte moom kese gëm boppam lii moom tour table ngeen ci def su ma la yeewee <laughs> waaw non je dis non dama ne nit souvent dina wax te day fàtte ni moom kese gëm boppam uh-huh. te loolu nag dañ ko fa ràññeeku te itamit il faut avoir l'audace benn instant et le mm-hmm. courage boo faree nga ne damay ñëw mais je fais partie du pour communication de tel mm-hmm. Mm-hmm. il faut avoir sa courage là moo xam même ba kay ba kay wax si Jomaay wala kay wax si Khalifa Sall ah. xam nga bu fekkee ni mais nag euh, bu ko defee pour naxe mbaay yaa ngi jéem a nax nax nit ñi parce que toog nga si télé bi ma déglu nga ne ngay laaj sa naataangoo naan ko yow yëg nga ni taskatu baay yëg nga ni Ousmane Sonko ak Diomaye fay jamono ji neexoowuñu du ñu mm. laalante mm-hmm. boobu mënuñu woon tontu parce que ñu ngi dans les la détention te tontu def naa si làmmiñu borom la dakkee mm-hmm. defe naa non non c'était faux non c'était faux toi et moi même nous savions que c'était faux lui seul ah, lui seul savait lui seul savait ce qu'il et était faux ba pare gëm ko mm-hmm. loolu la rek yàgg naa wax ni quand on est un violeur de la vérité on est aux portes du proxénétisme du mensonge mhm. yàgg naa wax loolu ma ne quand un violeur de la vérité mm. c'est que l'on est du proxénétisme du mensonge ak a dégg. te loolu nag il faut que même que ñu mën a tàbbi ci loolu pour mën a moytu. li nga fi liggéey doo ci tegaat dara <laughs> dama lay yeewi mais mais en attendant kilifa merci beaucoup Abdoulaye Mbow euh, donc ma ma yeewi mais suba incha allah day am des grands Abdoulaye Mbow mais mais kilifa euh, donc euh, Cheikh Yérim kàddu yi mu wax mu ne bu APR xàccandooyee dóorandooyee donc Amadou Ba moom à coup sûr day gagné premier tour. nooy ana ah, interprété Amadou Ba ñi ñii dafa war a aaye sax koy waxal. Mhm. jàmbal ma jàmbal ma jàmbal yërim <laughs> ma jàmbal ay ku mel ni Moustapha jaxate gis nga am na ñoo xamante ni Amadou Ba dafa man su ma doon moom wala ma jege woon ko dinaa ne ko waxal ñii buñ dugal seen làmmiñ ci yow bés buñ la waxalee soo demoon bay baax le sax dinañ la yàqal parce que ñoom c'est des ennemis de la vérité mm-hmm. dañoo fena fena fena fena fen ba mara day taali mm-hmm. xam nga di fen ba dugg ci weeru koor mm-hmm. nga mun a fegal tuuti rus weer wi tuuti rus weer wi parce que nag xanaa ñooñu buñ rusul doomu aadama yi ñu dëkkal nañ rus yàlla mi leen sàkk <laughs> xanaa Yérim lu mu gëma di gëma di gëma di ni dëgg mais Yérim war na gëm ni moom sàkkut boppam yàllaa ko sàkk man xam naa ni war na gëm existence yu yàlla kon nagus yàlla jooju ko sàkk ñu ba seen fen yi te xam ni dafa xew yi mosul xew sax bay xew yi man daal bu ma doon Amadou Ba moom dinaa leen aaye ñuy ñuy wax ci man bu dee ñi bu dee ñooñu la Amadou Ba am non buñ la waxalee ñooñu la Amadou Ba am ah. ñooñu ñoo porté candidature Amadou non Yérim ak Jambal gis nga. ñooñoo <laughs> porté candidat bi de. kon de Amadou ndeysaan il est mal barré. <laughs> bu dee nag su fekkee Amadou ñaar ñi nga xamante ni. ñaar ñi nga xamante ni boo taxawee ci réew mi. Mm. <laughs> Ah? Eh, ne ne yi la rim. Mm. yi la rim fen ci poste. Mm. nawle ba di ko feelu fee di ko ko jàmbal mm-hmm. ñaar ñooñu ñoo porté sa combat yor sa communication tàkk nga jippeet <laughs> Amadou mal baax kaddu yërim yi noo koy nga da nga na <laughs> yaakaar bu ñu xàccee ndoo dóorandoo dóorandoo loolu xanaa élection yii di ñëw la yu déwén ni yii de xàccee ndóor dóorandóor moom weesu na xanaa hmm. xam nga li gën a bon dinax nit ñi ba far di nax sa bopp. Yérim bu la nee Benno Bokk Yaakaar bu ñu xàccee xàcceendoo dóorandoo loolu kañ la. Mhm. campagne bi jeex na. campagne jeex na. Macky Sall wàccul ci terrain bi yow xëyoo fa bis. journaux yëpp yow xëyoo bis na Macky day wàcc ci terrain waaw nit laaj ma ko ci benn plateau ma ne ko moom ak xale yi ñu daan tusngal ne leen bu ngeen xoolee ci asamaan si gis Fatma Zahra di fóot lan na may tamxarit moom ak wàcc Macky ci terrain bi ñoo yem hmm. ay chimère xam nga ñun ñëpp gëmloo nañu lool tusngalu leen xool leen di ngeen gis Fatma Zahra muy fóot lan na mee tam du du la tusngal ba nga ba nga nga ñuul kurum moom ak gis Macky Sall wàcc terrain bi dëkk ba ngay gis kuy xel mi yaa ngi gis loolu nag yàlla baal ñu loolu nag moom la ñu journal bi bëgg xola moom la ñu presse écrit bi bëgg a def loo nit ñu ci dana wàcc terrain bi du ci wàcc mm-hmm. du wàcc même chose boo munta gis Fatma Zahra muy fóot ci asamaan si doo gis Macky Sall du wàcc terrain bi xam nga li am solo dëgg mooy imaam wax na la ko la candidature d'Amadou Ba dafa am ay nit yu ko porté mm-hmm. non seulement nit ñun sénégalais jàppewuñ leen ñu crédible muy benn sénégalais identifié wuñ leen ñaar ñetteel ba presque benn sentiment de jéppi la ñu am ci ñoom. bokk na li gën a yàqal Amadou Ba mooy ñu di génn di ko waxal. est-ce que mm-hmm. léegi moom bu la nee bennoo bokk yaakaar day xàccandoo day dóorandoo loolu moom béy wéy na mbuus. Mm-hmm. bennoo xàccandoo dóorandoo. loolu weesu na. léegi xam nga lu des. d'accord ah <laughs> bàyyil xel à chaque fois que muy génn di wax. <laughs> non dafa doy à chaque fois buy génn di wax. dafay tombe waa ji nekk en mauvaise posture. oui yi leer carte yi leer. il sort pour brouiller les pistes. Hmm, kon du hasard bu génn. du hasard rek benn génn ba. ba parrainage yi takkarnaasee ci jomaay la. mu génn na la Pastef amul benn sondage bu ko jox trente cinq pour cent. ci réew mi man maa la wax fii ji bi ci sa plateau ne la. Hmm. waxuma la Bassirou Diomaye Faye. allié wu Ousmane Sonko ñim tànnoon comme candidat. ki ci gën a ndaw la 40 pour cent la ko sondage joxoon. te li ma leen kenn du ko tegg am nga information. kenn du ko tegg jomaay amul benn sondage ci réew mi bu ko def moins de 51 virgule. léegi nag comme que ci élection lañ ne yooyu doo ci bëgg aventure ndax dafay mel ni yéen yéen yeneen candidats yi yéen a ngi yàq seen xaalis mais soyons honnêtes bàyyi sénégalais yi ñu tànn li nga sénégalais yi képp ku foog di mën nga toog ci écran mhm. muy man muy keneen di leen manipuler mhm. pour mu def ñoom li ñu bëggul nax nga sa bopp sa bopp mën nañ laa topp nag non dañu nekk nga yaakaar ne ñoom mais ñoo la gën a xam sur les acteurs publics waaye ñooñu sax gis nga ñooñu sax mhm. sénégalais yi xamal lañ leen leen jàppee comédien ay comédien taaw yi ñuy jàng école eh, ba luxuskat ya daan ñëw ci classe doon def spectacle <laughs> e eh, fara dem naa ci maami waata ñëw na ñoo gis nga ñooñu gis nga couple malheureusement couple la xaw ma peeru petax la xaw ma xaw ma lan lañu xamuñ ko naga ah. rukkule rek lañuy def yii mag ma jàmbal dañuy xëy di rukkule ba tëdd jot rukutu yàgg yari pitax nga rukutu non cest à man ay petax laa leen jàppee. kii kii kilifa dina ma rey alors euh, Imam Dramé. donc maa ngi koy wax nooy interpréter kàddu yooyu. donc gagné dès le premier tour ak sondage yi sondage yi génn par ci par là. non xam nga wax tamit léeg-léeg bu wax jubee dañuy laaj. Abdou Khadre yaa ngi ci de. Mhm, dañuy laaj kuy wax wax ji. waaw ah. yaa ngi dégg pour man réew mi bu sérieux woon Yérim Wóor du fee wax. Mhm. réew mu sérieux Yérim Wóor maanaam dañoo war a wut kol kol gémmiñam